Allah la ilaha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare tey baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ñaan suñu borom boo nu jéggal di jiit nuyu ak siyaar bi sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di teg sëriñ Modou Medna xalifa maam Serigne Fall di siyaare sëriñ Papa Kodulo ak sëriñ Mahamadan Mbacké moom Cheikh Amadou Moutada bu ngeen gisee jotaay bi tey nag li ko waral mooy bis bu ñuy waaj di bisu kent di delloo njukkal sëriñ Touba Euh, nu mu nekk la 29 avril incha allahu rabbi ñu koy woote fii ci Touba Medina fii ci Louga Touba Medina Salaam kon su ko defee rek ñu jëw ñu jox jëw ni liggéey bi sëñ Maam Góor Diop mu leeral liggéey bi ni muy demee incha allah bisimilah. di fas yéene leeral lenn si loo xam si moo waral jotaay bi ñu ànd koog waa daayira Miftaaxul Mina si gannaaw ndigal li nga xam si am nañ ko sëñ Pape Codé Lo mi nga xam si fi représenté borom Touba si Louga tey bi ñu noppee bi ñu ndigal loolu jàllee ki nga xam si moo fi nekk di seex Cheikh Mamadou sëñ sëñ Mamadou di kenn si leerug borom Tuubaa yi ñu demoon si moom i tamit am fi ndigal bi li loolu jàll it waa daara ji àndaan nañ jëm si ki nga xam si moo waral tey ji cant gi ñu tuddee ko kenn si seexi borom Tuubaa si mag ñi di si Ahmadou Diaw Pakha sultaanu arafin moom it bi ñu si kilif kilifaam bi nga xam si moo fi nekk te sëñ Thierno Diaw bi ñu tamit leeral ko ndigal li nga xam si tamit fi la bàyyi ko si Louga mu rafetlu ko lool bis boobu nag ren ñu fas yéene ko amal la 29 avril incha allah gannaaw buñ korité ba nopp di si woo mbokki jullit yëpp mbokki taaliba yëpp waaye woote gi di si jiital sunu wëllër yi nga xam si bu miftaaxum naa de miftaaxum naag léegi ñuy ànd ak ñoom di waa sant di sibiyan te di ñenn si ñu si ñun bu loolu jàlleet waa daayira bi nga xam si ñooy bàyyi ko Touba te am ak ñoom kóllëre gu yàgg muy a saxir bu nekk Touba ñoom it di ko ànd ñoom saa su nekk waaye di duggaat si goxu Louga bi di ko àndal mbooleem mbokki jullit ak mbokki taali bi ni ñu ko daan defee kon di woote ne bis bi daal du bisub Miftahoul Mouna bisub mbokki taali bi yëpp la bisub jullit ñëpp la kon ñoo ngi wàccee suñu kàddu te di jégalu bu baax. jërëjëf sunu jëwriñ sëñ Maam Góor Diop ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm te di la ñaan suñu borom doole tawfeex kon bu ñu kàddu yi yaakaar naa ci matoon a jàll lépp jëwriñ leeral na ko kon bu ko defee dañuy jox sëñ Abdou Khadir mi nga xam si ni moo nekk ci wàllu culture bi moo wax nu mboolem jàngkat yi nga xam si ni moom la woo ñu fas ne ñëw teew ci bis bi kon sëñ Abdou Khadre bisimilah. fas yéene waajal sant borom Touba ci Touba na Salaam incha allah taala euh, am lu ci sunu war war ceef muy wàllu jàngkat yi kenn ku ci nekk ak wareef gin am ak yow mooy jàngkat yi nga xamante ni sunu borom dogal nañu soxla leen fa incha allah rabbi mën na ni sax mboolem liggéeykatu borom Touba yëpp soxla nañ leen fa. waaye dafa am ñooñ ciy tudd rek mu mel ne tudd nañ mboolem jànkat yëpp incha allah ku ci demee ni jiil Dramé sunu mbokk mu nekk Touba dafay jàng incha allah rabbi Ousseynou Guèye yi nga xamante ni sunu mbokk wala sunu wërële la nekk fii ci Louga dana fa teew incha allah taala ak euh, sunu jëwriñ Moussa Seye moom it dana fa teew incha allah rabbi sëriñ Ibrahima kan fii ci Louga bokk ci Touba Dairatul mu Muna dana fa teew incha allah rabbi ak mbooleem jàngkat yi nga xamante ni tudd ñu leen sax bokk na ci tiit jëwriñ Mambay Samb bokk na ci incha allah dees na ko fa séentu incha allah rabbi euh, ni programme bi di taxawee nag euh, programme bi dana tax danañ ko tàmbali ci suba gi incha allah rabbi ci jàng alxuraanu karim 9h ba ba 11h incha allah rabbi bu ñu dees na nekk ci installation basse ba midi. ñu waajal li nga xamante ni mooy tisbaar waajaal tamit berne bi incha allah rabbi danañ dem ba 3 heures incha allah fa la programme bi tàmbalee mbooleem jàngkat yi nga xamante ni tudd leen ci ak ñeneen ñi nga xam ne tudd ñu leen ci teyit dees nañ fa teew incha allah rabbi yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi yëpp rek jiital Majmahun Nurayni ak Hizbut Tarqiyyah bi nga xamante ni moo nekk Louga ak mbooleem yi nga xamante ni ñoo nekk seen gannaaw ñëpp rek dañ fa teew incha allah kon daal loolu mooy li nga xamante ni dees nañ ko fa séentu ci jàngkat yi incha allah waaye it danañ fa soxla mbooleem jàngkat boo xamante ni euh, yëngu ci xasida yi rek mooy sa yitte des na la fa soxla incha allah rabbi képp koo xamante ni borom dogal na ngay tudd ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah soxla la fa li nga xamante ni moom lañ ci amoon yéene gaaral incha allah soxla nañ fa mbooleem jullit yëpp rek wa axiru daxwaana ani alhamdulilahi rabbil alamin wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Abdou Khadre ñu ngi lay sant baax ci kàddu yu sell yooyu ci leeral gi nga leeral maanaam liggéey bi ni muy doxee incha allahu rabbi yaakaar naa loolu ma matal leen lépp képp ku wax asadu an laa ilaaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah rek soxla na ci bis bi kon ñu ngi dellu di woo sunu jëwriñ di jëwriñ ci liggéey bi di sëriñ euh, Modou Lo Bichri di ko bàyyi xel bu baax a baax baax ci liggéey bi kon bu ko defee ñu jox jëwriñ sëriñ Cheikh Mané mu leeral kàddu yi incha allah. di ci woo sunu mbokk daayira wóllëri nga xam te ñoom la ñuy jëflanteel ci wàllum kuréel su mel ne waa daayiratu Hizbut Tarqiyyah comme niñ ko waxee ak waa daayiratu Saadatu Subyaan ak euh, waa fédération Miftaaxu Muna ak bépp jànkat boo xam ne mi ngi ci biir dëkk bi rek te seq ci wàllum jàng ñu ngi la ciy woo waaye di ci woo tamit sunu kilifa Serigne Abdoulahi Fall mi nga xam te ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci dëkk bi di sunu lépp di ci woo sëñ Dan Amar Fall Mbacke moom sëñ Amar moom sëñ Baara di ci woo tamit sëñ Xaadim Mbacke Mouhamed di ci woo tamit. mboolem kilifa goo xam ne mi ngi si tund njàmbur ak li ko war rek incha allah ñi di la woo si bis bi ba nga xam te ne moom la ñu amal incha allah di samedi yam ak 29 avril 2023 euh, incha allah fii ci quartier Médina Salam kon ñu ngi sàkkuwaat teewaay mboolem julli rek bu nekk si biir dëkk bi. jërëjëf sëriñ Cheikh ñu ngi lay sant bu baax te di la ci kàddu yooyu nga doon leeral kon noonu nu ko waxee rek nu dégg ko noonu incha allah kon bu ko defee dañuy woo sëriñ Cheikh Touba rek. moom mi nga xam si dafa nekk ci liggéey bi bokk ci waa organisation. di ziare mboolem daayira waa Mitaamu naa bépp ñun nag mooy ñu ngi wax ci tur organisation bi di soññee bu baax a di woo mboolem commission bi yëpp waaye itam di woolee mboolem daayira yi nga xam ne wóolarante ne ak ñoom ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi di ko jiital ci daayira Saxaat Subyaan teg ko ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo bokk dëkk fii ci Medina Salaam waaye itam ànd fas yéene ak liggéey bi daayira bi nga xamante ni moo nekk Touba muy daayira Ansaxir bi ñoo ngi ciy woo mboolem julli ñi di woo mboolem taalibe ñëpp rek képp ku yaakaar borom Touba ñoo ngi leen woo ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy def di le 29 avril incha allah ñoo ngi siyaarewaat ñëpp tey tiggalu ñu ngi lay yu matale yooyu kon noo ko déggandoo ñun ñëpp bu ko defee rek ñu jox suñu jëwriñ sëñ Maam Góor Ñas mu jàllale ay kàddu mu mel ne bu ngeen déggee kàddu li waa daayira Miftaaxul Mana Touba Medina Salaam ñoo teew fii si DBT seen bis bi nga xam ne moom la dënmal ñu di ko def incha allah gannaaw bu nu waree ba pare tombeek samedi le 29 avril incha allahu bis boobu nag di bis boo di si maanaam yàlla yonent bi ak sëñ Tuubaa rek tax ñu koy def kon bis boobu ñu ngi si woo mbokki jullee mbokki taalibe yëpp rek rawatina suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii si Louga nekk suñu wëllëre ak suñu mbokki taalibe nga xam ne ña nga ca Touba nekk suñu wëllëre ñu ngi si woo ñëpp rek bis bi nag bu ngeen ko déggee bis la boo xamante si maanaam du ren rek lañ ko tàmbalee def bis la boo xam ne maanaam mën naa ne ñi ngi ci cinquième édition wala six bis boobu nag wax dëgg yàlla chaque année ñu di ko dara jaale génn kilifa ren nag suñ borom def ñu koy ñu dara jaale ko si Ahmadou Diaw Pakha kon nag bis boobu nan xam ne bis bu kawe la bis bu mag la te loolu lépp leen si jublu rek maanaam gën a xam kan mooy sëriñ bi te sëriñ bi kat boo ko bëggee xam rek maanaam faaw nga dellu sama mag nga xam ne danaa ànd moom loolu dana gën a tax nga gën a xam sëriñ bi loolu rek maanaam moo sabab loolu kon daal ñu ngi si woo mbokki julli de mbokki taalibe yëpp rek ñu xam ne daal képp kuy dégg suñ kàddu rek incha allah ñu ngi lay woo ci bis bi képp ku dégg suñ kàddoot xamal ne am nañ yéene yegg si yow bu ñu agsiwut ci yow it xam ne maanaam am nañ yéene yëkkati suñuy jëmm ñëw ba ci yow nanga nga xam ne maanaam yitte yi moo ñuy tënk rek wala xel mën naa fata wala dara rek waaye képp koo xam ne yaa ngi dégg suñ kàddu rek am nañ yéene ñëw ba ci yow kun ñëwul ci yow na nga xam ne wallahi la asim xel mu fatt la rek waaye ñu ngi lay woo ci bis bi te xam ne bis bi amaana miftaax mun a wax kon ne salaam ñoo aaye ban bés lañu aaye muy woote sant Serigne Touba ak waa këram kon nag ñu ngi ci woo mbokki jullit yépp di ci jiital waa daayira waa daayira Centre ñu ngi leen ci woo bu baax a baax ak waa daayira Asaxir ak waa Xinmaanu Janna di ci woo nag bépp képp koo xam si ne yaa ngi yewoo Mina Salaam rek ñu ngi lay woo ci bis boobu ak sama mbokk soxna yépp ñu ngi leen di woo ci bis boobu di ko jiital nag ci woote bi waa daayira miftaaxul munaa ñu ngi leen ci woo bu baax a baax kon jërëjëf woote baa ngoog kon ñëpp ñu déggandoo ko noonu ñu waajal ko insha allah insha allahu rabbi le 29 avril fii ci Louga Touba Medinatoul Salam daayira miftaaxul munaa di war a cant borom Touba ak waa këram ak mboolem képp koo xam si ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha wa ashadu anna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi rek ñu ngi lay woo kon bu ko defee rek liggéey moom nii rek lay demee kon nu dégg ko noonu ñëpp képp koo xam si ni teew nga ci daal ñu ngi su suñu borom faj sa te lépp loo yéene liggéey ci lislaam liggéeyal borom Tuubaa suñu borom defal lu kawe njort képp ko xam teew nga fa it lépp loo xam si ni bëgg nga ko xam ci sëriñ ma jow paxa ak waa këram ak borom Tuubaa ak waa këram ak mbooleem loo xam si ni day jaar jaay daayira Miftahul Manar da nga ko fa fekk insha allah rabbi kon woote baa ma aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu la la la